jigéen mm. euh, mécc moo dem mm. ak ñaan gu doon mm. am na làmbeer yaay seet sa diggante si tray bàmmeel waaye bu la neexee te seetoo ci dara la gën a bon nga jéem di def moom ne leen ku leen di dina laaj dëgatu nit ak cëru nit nee na kooku criminel la jàppal waaw jàppal dëgg la day féticheur waaye lu baax lay dem moo tax man la kenn ku ci nekk ak la ngay jëfandikoo ak lañ ñu liggéey wax ko bu mu dugg ci bopp nit ñi ba ba liggéey fu waay jëm ci vétérinaire mbaa nga jëm ci. mbir mi leer sax seen bopp. góor a waay mbir mi leer seen bopp. mbir mi dugg seen bopp ba ñu xam ni lii yóbbu ko ci vétérinaire taxul sa aaja fajoo. xam nga alaaji euh, démb bi ñuy waxtaan yaa ngi may naan am na ci ñenn ñoo xamante ne dangay dem ca ñoom ñu ne la dangay ut deretu nañu ma euh, astaghfirullah nañu ma jégal bu baax waaye dangay ut deru xaj di ci julli ba pare wan gannaaw penku xam nga loolu dafa rëy dafa ala jël ci ligne allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Lo. Mbacke Balla. Ndiaye maa ngi lay fay. man la Soxna Jatu. Jatu ban. di nuyu Adja Degen Simer sama ah. xarit boobu. nañ la fay nañ la xarit sama. di leen ñaanal yàlla. ndeysaan jërëjëf maa ngi kontaan ci yow di la bëgg lool. ndeysaan bëgg naa lu ko raw soxna. di leen saa su ne. man la Jatu Ndour. Jatu Ndour Ndour Ndour. ngeen jëf. jërëjëf soxna Jatu. man nag lébu laa. ndeysaan. waaye damay yëngu ci wàllu faj. waaw ah, kay lii lañu bëgg de ñoom ñëpp nañu woote. maa ngi. ah alaaji cata gaaw gis nga xam nga lu ñu bëgg képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci tuur wala boog xërëm wala boog fétiche nga woo gindi askan wi ndax gis nga alaaji ki nga xamante ne nee na la ay xërëm wala boog ay fétiche dem naa ca ñu laaj ma deru xat biñ ma biñ ma waxee ni li nga bëgg. maanaam deru xaj ngay jël ah wan penku gannaaw ah, ah, ah di di julli ci deru xaj bi ñeneen ne la ni da jël li nga xam ne ñun loolu la ñu am muy suñu code di Qur'an wax la ne da nga fa am foo fenn foo koy dugal foo xamante ne allah ji ah, béréb bu sobe la xam nga yooyu dafa rëy te dëkk bi am na ñenn ñoo xam ne dem nañu ci ay bërëb foo xamante ne fii ci réew mi la sax ci région réew mi foo xamante ne génnuñu sax ñu leen di wax loolu ak kenn koo xamante ne ci ba tey ci réew mi dégg naa ne soo fa nekkee. dañu lay wax fanaanal soo ñëwee tel waxtu ah am na lu lay feeñu loolu dafa lay laaj loo may yoole xam nga ni yooyu alaaji ku ko ne maa ko dund loolu kenn mënu ci dara te mu ngi ci réew mi loo may yoole ba mu am ñenn ñoo xam ne alal dina tax ñu war a yoole seen soxna jabar ñeneen ñi yoole seen doom ñeneen ñi yoole seen bët ñeneen ñi yoole seen cër loolu yëpp ñu gis ko fi dégg ko mu am ñeneen ñoo xam ne ne dund naa ko loolu fa tubaakala macha allah alaaji suñ ko déggee dinañ taxaw nag posé lii. ani luy xërëm ani luy fétiche ani luy lan tuur mm, jëlee ko ci lii allo. oui allo. waaw. salaamaaleykum. salaam. Euh, dama doon dama doon oote ngeen baal ma nag c'est la première fois may oote nii ci télé. Mm-hmm. Mm, euh, dama bëgg wax rek ni Sénégal mm, li fa li fa nekk du rek xërëm Sénégal dafa nekk euh, dëkk bu nga xamante ni loolu il faut ñu wax ci. parce que waxuma la waxuma la waxuma la xërëm rek mais sëriñ yu nga xamante ni dañuy julli di woor sëriñ yu yore alxuraan euh, nit day dem ci nit wax ko liggéey mu defal la liggéey bu nga xamante ni euh, mën na la rey man li may wax nii dama ko vivre loo moo tax ma leen di wax euh, Sénégal mi ngi bëgg a yàqu te kenn du si wax. noo ko dundee bon du ma wax yëpp parce que euh, voilà. dafa bañ. mën nga mën nga mën nga mën nga joxe ay point rek ñu xam ne lii gis nga ko fi euh, ay ay point rek yu ñu mën a leerlu. allo dafa am. Mhm. Euh, man dafa am li may wax nii. Mhm. inventé ko. déedéet. voilà dafa mhm. nekk lu nga da ngay da ñëw te defoo nit ki dara. waxoo ko. defoo ko dara. Mm. da ngay da dañ lay gis rek xëy na bañ nga avancé. Mm. gis na xëy na peut-être peut-être laa de gis nañ ne xëy na peut-être yaa ngi avancé. Mm-hmm. rek ñu bëgg laa baaree ci yow yoon bi nga jëm. maanaam ay symbole réussite daal ci ñoom daal la bañ. voilà donc te Sénégal lu rek moo fa am léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. ay xërëm. buntu kër ñaari buntu kër yoo dugg sëriñ nga fa am na ñu baax nag. ñu nga xamante ni ñu ngi fa di def lu baax. Mm. mais dama ne man waxuma xërëm bi ngeen ko waxee nii dama ne da ngeen a gisul moo tax. Mm. xërëm fétiche yi lu mm. tuuti la. Mm-hmm. sëriñ yu nga xamante ni ñu ngi yore seen alxuraan. sëriñ yu nga xamante ni soo demee. nii dañuy gis dañuy yore seen alxuraan ñooñu la nit di dem. ñu lay def lu nga xamante dañ ci teg sa bët. mu leen ne lii dafa nekk dëgg boo koy lekk di dee. boo koy lekk di di bu yàlla rek man li may wax ni yàlla rek ak samay. ñaanu waajur defu waa kay ak tamit defuma nit lu bon. Mhm. defuma musuma def nit lu bon xamuma lu bon. moo tax moo tax moo tax nga mucc ca. moo ma sauvé. macha allah. mais loolu su ma ko su ma ko lekkoon. Mhm. loolu ma leen di wax noonu. billahi wallahi taalahi su ma ko lekkoon tey du ma toog sa di wax ak yéen ñi. ca ca yërmande suñu borom mm. te yàlla rek moom suturaal ba nga mm. xamante ni nekkuma ko takkuma dara kii ma dara mais dama jékki rek. xalaat affaire bi ma ne lii nii lan moo tax kii jox ma lii. Mhm. li may wax nii dafa garaaw trop te kenn du ma xàmmee. ci mhm. li may wax. Mhm. Euh, man lu tax kii jox ma ko. ma wax ko sama waajur bu jigéen mu ni ma déedéet c'est normal. dara ma ni at yu bari yu ñu jaar ak dafa am lu bari ci ginnaaw lu ñu jaar ma ni. damay ñaaw njort daal. parce que li ñu wax rek nit ki bu la moo tax dañu wax ne xërëm am na fii certes. Euh, lu bon am na fi. Mm. mais gis nga liggéey bu la jàppee rek xëy na yàlla moo moo dogaloon ci yow que ni loolu daf daf la waroon a jàpp. Mm-hmm. xaw na nan laa la ko mën a expliquer daal. waxoon kay ñu ngi dégg ñu ngi dégg bu baax a baax a baax. waa kay bu la xërëm jàppee rek mooy que ni euh, bu la lu bon jàppee rek. Mm-hmm. am na lu mu fànq ci yow. dëgg la. waaw parce que bu fekkee ne warulaa jàpp. Mhm. ak lu kooku lu mu ay aay ay aay aay yow mi nga xamante ne xale bu ndaw takkoo dara. Mhm. yow yaa mën a fexe ba dindi loolu. wallaay wallaay suñu borom bee mën lu ne. suñu borom moo koy def ci sa xel mooy def ngay gént mooy def ngay nga te loolu dafa nekk lu nga xamante ne lu lu lu leew la lu man lu ñu mën doxoon noonu aw ci keneen man après sax sama yaay dafa ma doon wax ne ma yow da ngaa dof. nga am ci nga am ci sixième sens daal. waa kay te lu xamante ni la ku mu doon moom la du dara amul problème. mais man rek maa ngi am sama man it fu déedéet li dinaa am lu ma def ma dem sama yaay bëggul woon sax dem man dem euh, ci sama ay mbokk nga xamante ni ku nekk koo gis rek ku am ku am kër ndey rek am nga kër baay am nga kër mm-hmm. ma dem xam nga ñu jox ma ci ay firndeel yu nga xamante ay firnde yoo xamante ni dama ne non non non lii moom lii nag bu amee te jii. Mhm. man ma xam ne nag lii nii lii li mënul nekk te xam naa ne man dëgg la mais mhm. ñu gis mais exactement nu ñu ma ko waxee. Mhm. exactement noonu la amee. Ah. may du ma yàgg nag si ligne bi may lii nii. nga doole nga nga doole sant yàlla. ma dollee ma dollee sant yàlla. waaw waaw loolaay walaay ma dollee sant yàlla bu baax a baax. Mm, mm, mm. xam ne donc mu ngi noonu ngeen wax ci temp bu baax. Mm-hmm. wax ne nit ñi nañu gëm yàlla. ndeysaan liggéey nekk di liggéey nit ñi nekk di leen sëriñtu. te gis yi ngay dem di gis lu nekk. Mm-hmm. ngay gis nii man damay gis nii nit di la liggéey nii ngay gis di koy jàkkaarloog moom nii te bu xëyee suba nuyu la. ngay gis nii ñu wax la lii nii ci sa sëy lii nii dinañ la def nii. Mm-hmm. man. dama nekk xale bu ndaw su la waxee sama âge amaguma 30 ans. macha allah mais mais lu ma gis sama àdduna. Hmm. lu ma gis depuis ma am 20 ans lu ma gis sama àdduna. tata hmm. Degene. Hmm. musu loolu dama mel ne ku am cinquante ans. dëgg la. waaye dama gis lu ne. waaye nga dellu rek wàkkirlu ci suñu borom bi. wàkkirlu ci suñu borom waaw nañuy wàkkirlu ci suñu borom bi.